def euh, rencontre ak population bi doon def manifestation ak ndaw yi doon def manifestation bu bañ a am benn euh, récupération politique ci mouvement wala association ñu waxtaan ak ndaw ñi ci façon bu dëggu ñu bàyyi wàlla xel yi nga xam ne tey même bu fekkee am na manifestation ñoom dañuy suuli seen doom ñu bàyyi wàlla xel ñi nga xam ni démb ay victimes lañu te dëkk foofu ngor te seen yoon nekkul ci manifestation xam nga njiit réew mi def na devoiram ci dafet mu dalal leen mais rencontre yu mel ni Sénégal souvent dañu dul laal góomba duñu laal góomba duñu faj góomba dañuy dañuy faj li ko wër nii rek parce que rencontre bi am na solo xëy na li tukkee ci rencontre bi ñu waxtaanee ko mun nañ ko bañ a étaler publiquement mais xeex bi xëccoo bi publiquement lañ ko def donc war nañu leeral ñi doon xeex ñi doon taal di lii ak lii lañu fa dëppoo ci ay kàddu. parce que parce que loolu mooy tax waxu kilifa souvent du sax parce que bu fekkee ñiy manifester leeralu ñu leen lu tax euh, wala lu ñu jëlee ci waxtaan ba ñoom dañuy continuer di manifester parce que ñoom ñi ñoo jiite woon manifestation yi. way takk der yi aussi parce que tey ñi demoon palais lu mu néew néew néew bu ñu amee accord war na am condition bu ñu tegal nguur gi muy ñu wàññi effectif way takk der yi ci ñoom. gis nga gendarme yi police yi ci ñun la ñu bokk. mais seen seen présence dafay lëndëmal quartier. ñu jeexal foofu rapidement Mansour. waaw seen présence dafay lëndëmal quartier donc ci waxtaan bi dañu xool lu ñu mën a wàññee effectif bi pour ñoom waxtaan ak seen i njaboot tas information bi balaa balaa balaa balaa nga xam ba ba ba ñi doon manifester mën a dégg mën a comprendre lan la ñu jëlee pare jàll. Ousmane Sonko dina fa yéene nekk candidat dara du ko tey itam euh, nag mu bokk ci yooyu l'élection loolu ci boppam moom moo ko xamle dem ci guddi la yëkkati yooyu le kàddu moom maire bu Ziguinchor àdduna itam ci àtte bi nga xam ni moo daal di euh, juddu ci procès bi ko doon wutale ak Mame mbay Niang jëm ci wàllum diffamation fi mu ne nag daal taxaw na daal ngir nag ñépp daal di génn jàmmaarloo ak régime bi nga xam ni moo fi daal di nekk jamono ji bu njiitu réew mi Macky Sall yooyu de kàddu Ousmane Sonko démb euh, yëkkati ko euh, ca nag kàddu ya mu yëkkati na mu ko taamoo defee dal ci bu baax a baax ci kaw njiitu réew mi ak li nga xam ne moo fi jotati xew ci ayubés yu génn rawatina li nga xam moo tukkee ci euh, procès boobu yaatal yi ak Ibrahima Khalil Diémé ñaari fan gannaaw bañ ko daanee ci tribunal bu ndakaaru ci juróom benn weer bu toftal sursis Ousmane Sonko ñëwaat di janoo ak ak askan wi di yi ay kàddu jëmale ko ci situation bi nga xamante ne moom la réew mi di dund ci wàllum politique jamono ji la xewoon 2021 muy jóg bëgg a pexeel benn nit ci ay complot ki tappale ba yow askan wi nga jóg ne du fi amee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 mi nga xam militant yépp di ci jaaxle Ousmane Sonko di ci yeey yàbbi ak atte pour wëyal dogalu Macky Sall wala ndigalu Macky Sall problème bi gën a rëy ci Sénégal mooy problème mu justice ndey jiraw bu bokk moomel bu sigi coor ci situation bi ni mel mi ngi woo sénégalais yépp ngir ñu taxaw jaamarloo ak nguur Macky Sall ñu xeex ko mu jóge fi suñ leen woowee ci ay manifestation ñaan nañ leen ngeen génn massivement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 ba mu nekkee ci situation bu jafe ci wàllum politique ba ci condamnation bi nga xamante ne moom lañ teg ci ndoddam askan wi yëpp daal di taxaw tem di jaajëfal ko bu baax a baax Ibrahima Khalil Diémé Ibrahima mu nekk kàddu nga xam ne moom la Ousmane Sonko euh, yëkkati démb ci guddi fi ne nee na euh, kenn du ko tee nekk candidat ci ci élection yu ñu dëgbal c'est son droit kenn du ma tere Karim Wade doon wax kenn dañ koy tuumaal waaye kenn du ko jàpp ñu ne dañ koy jàpp waaye kenn du ko tëj dañ koy tëj waaye kenn du ko àtte dañ koy àtte waaye kenn du ko kenn du ko daan mm-hmm. gis nga nguuru Ablaye Wade ak nguuru Macky Sall dafa am différence xam nga luy différence bi mm-hmm. Ablaye Wade mag na ci benn moment ñoo ko doon xeex wala ñu mu doon xeex moom mm-hmm. Ablaye Wade teew bokk na ci élection ñëpp bokkoon opposition bëggoon dem élection yëpp dem nañ ci élection 2012 ba ñu demee ba ci biir ñu ne kii moo jël P waaye amul majorité kee jël deux ñeneen yi bokkoon ci élection ñëw ànd ak moom. muy Macky Sall tey mu doon président de la République. 2024 euh, lañ jëm maa ngi koy wax démb tey f seen xeex xam nga lan war a doon. na ñëpp bokk. na ñëpp bokk mooy ku mën a bokk. koo xamee ni yoon tegul sa kaw. Mm. koo xamee ni peut-être yoon tegul sa kaw ci ci ci kaw. Euh, pexe bu ñu la lijjantil pour yóbbu la ci yoon. mais koo xamee ni yow def nga wala loo xamee ni yóbbu na la ci yoon nangul ni yóbbu na la ci yoon nangul ni daan nañ la ci yoon nangul ni ndax yoon tax na nangam ak nangam. waaye na ñëpp bokk mooy principe. ci ci ci ci lu ñu woowee constitution ci état de droit ci démocratie également ñëpp mën a bokk dem dagaan baatu askan mais il a parfaitement raison et il est légitime. quand il di en tant que qu'homme politique mais damay bokk dara mënu maa tere bokk wala kenn mënu maa tere bokk propos un homme politique qui aspire à, à être président un jour mais propos également de quelqu'un koo xam ne dafa jàpp ne dañ koy traqué wala dañ koy sonal mais lii entre waxam moom ak réalité bi mën na am nuance boo xam ne peut-être moom mën na nekk à l'origine de nuance boobu wala mu am jafe-jafe wala état wala nguur ñu fi ne wala régime bi fi ne poussé ko ci loolu waaye lii principe bi mooy ñëpp bokk élection mais pour ñëpp bokk élection nag ci présidentielle am na yu bëri yoo xam foog ñu def ko bokk na ci parrainage bi nañ ko waxtaanee waat mm-hmm. buñ ko waree dindi dindi ko bokk na ci lu ñuy wooyee ay euh, homme politique yu ñuy jéem a wutal ay ndëgg sërëx mm-hmm. ak ñoom seen bopp homme politique yi bañ a dugg seen dugal seen bopp loo xam ne mm-hmm. après dañuy ñëw ne nii euh, dañ maa toñ alors que peut yaa tooñ ba ñu écarté wax itam ci daan bi nga xam ne mën a tekk ci euh, ki nga xam ne moo di leader bu Pastef di Ousmane Sonko mu di juróom benn weer yu mu dul tëdd ak ndàmpaay lu toll ci ñaari téeméeri million euh, leader yu coalition Yewwi Askan Wi démb nag yëglu nañ ci loolu ngir euh, ñaawlu ko ñoom sax fi ne daanu fa seenee wàcc ci mbedd ndakaaru yi fukki fan nag euh, juróom-ñeent ci weeru mai euh, bi ñu nekk ni ki démb daal lañ yëkkati yooyu le kàddu janoo ak taskatu xabaar yi ngir ñaawlu bu baax a baax atte bi nga xam ne moo juddu euh, ci mbir mi ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ñaawlu na itam ci jëmale kàddu yi nga xamante si ni moo daal di rekk ndox ci diggante Barthélémy Dias ak itam Sonko yaatali ak Biram Xari Ndaw bu kenn naatable ni dangeen tasaaroo. yile kàddu mu ngi bàyyeekoo ci Khalifa Sall bokk ci conférence des leaders mu yëkkatikoo ci bile ndaje gannaaw ba yoon daanee Ousmane Sonko ak itam kàddu yu tàng jër bàyyeekoo ci Barthélémy Diaz. que Yewwi fa mu toll woon ma nga fa nous sommes une famille nous groupe d'amis amoon luñ dul waxtaane bu kenn naatable ni daañu